Nous journalistes ici, il faut que nous gën le combat de principe man sama xol dafa un sax de presse presse écrite bi journal mo une affaire affaire euh, Adja. mais c'est lan lay lan bu nous... amee problème problèmes biir di jaar mais c'est des problèmes de principe. li dal ajaa mën na leen dal léegi léegi léegi buñ ko xeexul mu jóge fi te xeexal ko fësal ko ndax xeex dafa war a fës am na xeex yoo xam ne ay dañ ñun ñoo ci war a jiitu kenn waruñu si fekk. def leen ko pour Bamba Kassé def leen ko pour Moussa Ndiaye dañ koy def pour métier bi nga xamante ne moom nañu tànn ñun il faut que journalistes yi ak techniciens yi ñu gën di mobiliser wu parce que dañu war a waroon nañ dépasser fi yëpp. war nañ dépasser sarax bi nga xamantene état daf ñu koy sarax nan way dama leen jox aide war nañ dépasser depuis trois ans amul ben secteur lolu ci Sénégal amul ben secteur bu maam depuis trois ans ñu voté ben loi wara jël ñaari décret jëluñu ko te parce que journaliste bon ñom laal ku ne da ngay toog sa coin di régler say problème bop lolu loolu dañ ko wara dindi ça c'était une petite digression que je voulais faire mais ça me tient vraiment à cœur je vous remercie Thank you.